Salam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ravi de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne A2S Pro avec un immense plaisir continuez leen di abonné la cloche de notification bi bu leen liker di like vidéo bi vous aime, de aimé di bës ci baaraam bi partager de vous commenter comme on a l'habitude de le faire nous allons voir sur ce qui concerne l'actualité politique sénégalaise l'honorable député Aïb qui taille moi troisième fois Moi dem DGE direction générale des élections pour retirer les fiches de parrainage du président Ousmane Sonko en tant que mandataire la fa Mon son droit le plus absolu Je ne suis pas mu mang fa taxaw candidat bu ñuy président Ousmane Sonko kenn du ko fi jox fiche de parrainage mu nekk mbir teguñ ko ci lenn lutul dul jaay doole ak yépp sénégalais yi wax ji pour teunk ko résumé ko li ñu war def yépp def nañ ko ñak nañ ñëw le 29 septembre ñu jox plus de deux cent et quelques sénégalais ay fiches de parrainage lijjantiwuñ fan lañ dëkk lijjantiwuñ fan lañ bokk lijjantiwuñ ndax seen tour mu ngi ci fichier électoral mais kenn mooy seen problème mooy le président Ousmane Sonko parce que Sénégal yi dañ ko bëgg pare pour fal ko jox ko réew mi Macky Sall taxaw ànd ak ay saay-saay ak ay vëyu di jaay bandi sénégalais yi ne loolu du fi amee léegi dem nañ ci yoon yoon joxe dëgg muy le juge Sabassi ci tribunal d'instance bu Ziguinchor wax na Ousmane Sonko ni ñu ko génnee ci fichier bi teguwul ci yoon nañ ko réintégré wat ci fichier bi lima dégg tay ci information moy wa DAF direction de l'automatisation des fichiers Dougalat nañ le président Ousmane Sonko ci fichier bi respecté nañ décision justice DGE mi nga xamné mo wara joxé fichier té Macky Sall nek sen ginnaw di leen woo di wo Thiendella la diko wax nako bul jox président Ousmane Sonko tous

décision de justice bu Ziguinchor génn mu demaat fa ñu ne ko duñ ko jox def communiqué communiqué boo xamante ni luñ ci wax amul benn base juridique te ñi jàng euh, droit xam yoon ñi nga xam ne ay expert électoral lañ yépp wax nañ ci tey nag troisième fois dem na ginnaaw bi Sénat bindee wax ne DGE amul droit di ñàkk jox le président Ousmane Sonko ay fiche de pare am bañaat nañ def nañ nag communiqué bi Sénat sax génnee dogalam ba pare di waxaat ay waxu dof na ñoom dañuy xaar décision définitive maanaam dañoo am yaakaar xëñ na ce juge yi nekk euh, cour suprême pour ñu casser décision justice ba jege tribunal bu Ziguinchor loolu moo tax waaye pour résumer leen tënkal leen mooy ne lii yëpp ben doomi adama bu ñuy tuddé Macky Sall nek nekk baadoola un parvenu ramasser le pouvoir en 2012 sénégalais def erreur xol xool baadoola bu salte bu tilim bu bon jël réew di ko jox mu jël doole ji di ko xexé ak sénégalais parce que bu nekkoon nit ku bax dina sant yàlla ndax yàlla daf ne la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid te ci yoon bobu la nek ci azabi la shadid bobu non ci la nek yàlla mu ngi koy mbugal léegi sénégalais yi lay waxal lenn moo fi sës mooy ñun ñu ëpp ci sénégalais yi Ousmane Sonko lañ bëgg pour dénk ko réew mi te loolu feeñ na ci lépp jarul sax ay sondage yi ko jox ay experts ñoo xam ne seen xam-xam dafa ci ay wàllu yooyu ñu koy def yow boo xoolalee sa di nga xam ne sénégalais yi Ousmane Sonko dafa bokk ci ñoom seen quotidien Ousmane Sonko def cee bokk seen dundin fu mu nekk nii Ousmane Sonko dafa bokk ci Sénégal. ci ngénte yeeg ci takk yeeg ci dëj yeeg ci daayira yeeg ci match nawetaan yeeg ci làmb yeeg bépp xew-xew ci marché yi grand place yi Ousmane Sonko moo fa nekk kon Sénégal yi seen bëgg président Ousmane Sonko dañu ko wane ba ci profilu réseaux sociaux yi ñu bëri tey seen photo de profil président Ousmane Sonko moo fa nekk ay nit yu koy tuddee doom chaque jour nga dégg ñu ne tuddee nañ ko doom kon kooku nit ñi dañ ko bëgg naturellement malgré fu ñu jaar ak moom yàq der di sos di fen terewul Sénégal yi ne ñett kii lañ bëgg léegi Macky Sall ci boppam moom moo ne Ousmane Sonko du fi nekkee candidat faalewul justice yoonam nekkul ci ay droit yoonam nekkul ci ay loi waa léegi Macky Sall bi nga xam ne un groupuscule de personnes la àndal ñoo xam ne

dafa def lu mu wara def ñu dàq ko mais tapet ak ñu jox la xaaliss ba nga doyal ba sa bop bi gëna ngand sa bir bi gëna a nga gëna a néewi ndax fi butunihim naaran seen biir safara mo ci nek l'argent du contribuable lañ leen di géré ñi toroxal Sénégalais yi faalé wuñ Sénégal sen intérêt personnel rek mo leen intéressé stabilité Sénégal sen yoon nekku te gis nga Macky Sall yëfu veuyu yi muy def ak yëfu bandi yi moo taal sous région bi dëkk yu bëri yu tàkk tey lu muy def nii jël justice bi euh, jël ko def ko moomeelu boppam xaaj Sénégal Sénégal bi nga xam ne ñu ànd ak moom ñooy def lu leen neex am nañ droit def détournement de deniers publics am nañ droit def trafic de faux billets am nañ droit def menace de mort am nañ droit def appel au meurtre am nañ droit di def ay injures publiques lépp luy yoon di tere am nañ droit def ko te ñooñu kenn du leen def dara waaye ñi nga xam ne ñoo ànd ak président Ousmane Sonko ak ñeneen ñu ko contre bu ñu sëqatee mu yónni policier ak gendarmerie ñu ñëw di leen agressé di escalader seen kër di jaay fu vëyu ak yëfu bandi loolu moom moo am Sénégal te loolu taal na dëkk yu bari tey ndax président bu toog di jaay nit ñi doole di xañ ñi seen àq ak seen yelleef lëkkaloo ak ay moroomu vëyoom ak ay moroomu bandeem ñu terroriser sénégalais yi jël Sénégalais en otage han hein, xagn nit ñi jamm mais lolu mo taal dëkk yu bëri te ñaanuñ yalla mu taal suñu rew comme ni koy tubaab bi di waxe dafa melni il cherche la merde quoi mais nak ñun ñu nga xamanteni tay ñun ñoo leen ëpp lepp lu mu leen jaral bañ ne président Ousmane Sonko bi nga xam li ëpp ci sénégalais yi mom lañ bëgg na dinañ ko jox réew mi mu xam Ousmane Sonko bu nekkee candidat day nekk président mu ne loolu du fi amee.

mais nañu génn ñun ñu bëgg président Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ni dañoo bëgg stabilité au Sénégal ak ñi nga xam ne dañoo bëgg état de droit au Sénégal bi nga xam ne Macky Sall yàq na ko ak démocratie bi nga xam ne nërmeel na ko rendi ko pour mu jëm kanam nañu génn bàyyi ay affaire de ego ñuy woowee seen bopp ay opposant nañu fàtte seen bopp te xeex ngir le président Ousmane Sonko taxul waaye xeex bi dañuy xeex pour la démocratie sénégalaise pour l'état de droit Macky Sall dafa yàq Sénégal nañu jël suñu intérêt personnel ak suñu ay ego ñu sanni feulé ben doomi aadama bu nekké Sénégal nar a yàq réew mi mais wareef la pour ñëpp bolo xex ko mom mais Macky Sall daf ñoo mëna a Macky Sall moy kan yow nit ko xamanteni dañ la yombalal nga ne yow do yombalal kenn nga jotee ak Abdoulaye wad Abdoulaye Wade mënoon la tecc ci kasso bi jaay la doole comme ni ngay def nit ñi di leen sosal di leen fenal di leen jiñ ay terroriste ak ay force ay spécial ak ay appel à l'insurrection yëfu caaxaan yi fen yooyu noonu tëj ay doomi jàmbur ci kasso bi bu neexoon Abdoulaye Wade tey am na lu mu la jàppe tëj la ci kasso bi yaa ngi nii nekk multimilliardaire ta tu es issu d'une famille très pauvre comme la mienne Wade defu la dara bàyyi la terewul la nekk candidat nga dem la conquête du pouvoir gagné ko mu nangou accepté nga ñew di jaay sénégalais yi doole bi nga jëkke tok li nga jëkke def dem ci code électoral bi ci cëxatee ko pour tere nit ñi ñu nek candidat chaque élection ku la neex moy bokk ku la neexul du bokk est-ce que le sénégalais ñun war nañu nangul lool ñun mais le peuple est souverain ñun ñoo moom suñu réew Macky Sall moomul réew mi Macky Sall ñoo tanal kan mo war nek président néna du nek candidat il n'a qu'à organiser des élections libres et transparentes inclusives képp ku bëgg a bokk ci élections yi te conditions yi réunir critères yi dajee ci yow nañ la bàyyi nga nekk candidat sénégalais yi àtte xool ki leen neex ñu dénk ko seen réew mais waruñoo nangu Macky Sall ñëw toog fii di jaay sénégalais yi doole ciblé benn nit singali ko ne kooku daal comme sénégalais yi bëgg nañ ko mu ne li ëpp ci sénégalais yi moom. liñu bëgg du fi amé waye mom mi nga xamanteni tekki wul dara moom ñi mu àndal liñu bëgg lool moy am ci jaay doole parce que mo yore ay jugeum yore ay gendarmam yore ay policier am ay sëriñ yu jàng alquran xam lu yàlla wax ak lu yonent bi wax diko jàppale ci ay ñaawteef di ut ay nervi muy ray suñ ay doom ay nitam di sàcc di def lu leen neex muy xagn ñi seen ak ak seen yelef di toroxal nit ñi di jàpp ay doomi jàmbur yu deful dara di leen tëj ci kaso bi ay jigéen ñu ëmb ay jigéen ñuy nàmpal ku sëqat mu jàpp tëj ay nit yu jàng diine ànd ak moom di ko jàppale ci ñaaw téefam yooyu mu nekkee jël président Ousmane Sonko di acharné wu ci kawam di persécuter ay ndaw ñi di daw di dugg ci gaal di dee ñi di jël yoonu Nicaragua bi di dee ñiy gàddaay dem ci sous-région bi ñëpp toog di seetaan

waaye nag gis nga réew am na foo xam ne bu fa tollee na ngeen jël seen responsabilité yéen magistrat yu ëpp jaral na sax ngeen ngeen démissionné comme ni ko juge dem dafay woon donte moom bi mu démissionné continué wul xeex bi parce que dafa am problème ego ak président Ousmane Sonko ay affaire jalousie nañu booloo ñun ñëpp fàtte suñu ay intérêt personnel jiital l'intérêt du Sénégal sauver réew mi parce que réew mi fu mu jëm baaxul ñi nga xam ne ay borom kàddu lañ nekk ay célébrité nañu wax ci réew mi fu mu jëm baaxul benn nit bànneexu bakkanam intérêt personnelam ay règlement de compte personnelam am président Ousmane Sonko warul tax mu jël sénégalais yépp en otage warul tax muy def loo xam ne mën na taal réew mi ëllëg réew mi jàmm lañ fi bëgg te moom moo waroon nañ Nek nit ko xamne mom mo wara oté jamm waye jox nañ la nguur rek nga yoré dooley état di ci xex di xagn ni seen ak ak seen yelleef di togn nit ñi di toroxal doomi adama yi lolu pour lan la def nga sa ñaari mandat demal sa yoon baye ñu suñu rew ñu soxla tuñ la ñu xol ki ñu neex ñu jox ko suñu rew sénégalais yi mbolo moy doole kasso yi daf lañ koy nappé Manul le ñepp Je leen kasso man xex li ñuy te kenn sax du dam Algérie abdul Aziz Bouteflika bi mu briguer cinquième mandat en étant dans une chaise roulante wa Algérie dañoo génn ne lii du fi pacifiquement Mali bi ñu bëggee Ibrahima Boubacar Keïta dem dañoo génn pacifiquement Burkina Faso def nañ ko réussir ko ak Blaise Compaoré Tunisie def nañ ko réussir ko ak Ben Ali mi nga xam ne yàgg na fa nekkoon dictateur bu soxor Égypte def nañ ko ak euh, Hosni Moubarak moom tamit nekkoon dictateur bu soxor yàggoon fa lool yeneen li réew def nañ ko. mané inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla du soppi ben rew budul ne wa rew mo ñom ñoo jóg dañoo bëgg a ku wax na ñu naan ay appel à l'insurrection fi ken auto wu fi insurrection waye Macky Sall sénégalais ñoko fal jox ko rew mi bu jéxalé na dem yonam sénégalais xol keneen ki nga xamne mom lañ bëgg ñu fal ko parce que am na fi ñaari alternance yu fi am yu set wecc 2000 Abdou Diouf dañ kaa gañee gannaaw bu mu fi defee 19 ans et demi mu nangu dem yoonam te laataa loolu Abdou Diouf daf na ay jéego ci wàllu démocratie ak processus électoral bi code consensuel amoon na fi en 92 ak Kéba mbay ñu indi fi ay isoloir encre indélébile voté ak sa carte lolu yeb tay Abdou Diouf mom moko fi indi indi fi ay multipartisme participer ci démocratie sénégalaise bi Abdoulaye wad ci lolu la falo wad ñew yokk ko indi Sénat bi ma leen doon wax hein indi limitation de mandat donte def na ay erreur waye li Macky Sall di def ni kenn mësu ko def tay ci président au Sénégal yu fi jaar yeb man dem naa ba Senghor sax buñ mako sulilon suliloon indil ma sax man moma gënal Macky Sall waxuma lak Abdou Diouf ak Abdoulaye wad nag.

lijjanteetu ko yoonam ci ndox mi cher courant bi cher di def Sonatel di internet bi cher ah dund gi cher nit ñi amuñ ku ba am sa ay diplôme doo am liggéey sonn njaboot gi sénégalais les sénégalais sont fatigués ñi am jàmm mooy ñu ànd ak Macky Sall ak ay ministre am ak ay sëriñ yu koy jàppaleeg ay communicateur traditionnels yu koy jàppaleeg ay journalistes ak nit ñu ànd ak moom ñoom ak seen ay doom ñoom ñooy noos seen doom yi duñ fi jàngee bitim réew la ñuy jàngee buñ feebaree duñ fi fajoo ñun mënuñoo feebar ba faju ah ndax ay hôpitaux yu bon sàcc nañ suñu xaalis ñoom ñëpp ils sont devenus des multimilliardaires ah ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon a dem kaso tey nekk fii di vaquer à leurs di jël plateau télévisé di saaga nit di jaay reewaande ak xamadi ñi nga xam dañoo jub mel ni président Ousmane Sonko mosu ñoo sàcc alalu Sénégal te def 15 ans impôt et domaine foofu nga xam ne teenu xaalis la mu mënoon cee tubb sangu ci def ko nekk gor indi programme am sénégalais yi gis seen bopp ne moom lañu bëgg Macky Sall taxaw ànd ak une association de malfaiteurs di jaay sénégalais yi doole na loolu du fi amee ma ne loolu bu ñu ko nangu sénégalais yi bu ñu ko nangoo dañoo ñàkk fayda te gis nga 2024 bi waruñ ko raté nañ si profité récupérer suñu réew defaraat ko gere suñu ay ressources naturelles suñu géej gi nga xam ne jël nañ ko jaay ko ba mool yi mënatuñoo napp jën ñu récupérer waat ko defaraat suñu réew téye suñu doom yi nga xam ne ñu ngi gàddaay utal leen liggéey suñu xaalis si pétrole beeg suñu gaz beeg suñu zircon yeeg phosphate ak fer beeg richesse yu ñu am yépp ñu exploité ko naatal ci réew mi jaarale réew mi ci yoon le don de soi bu président Ousmane Sonko oote nekk dëgg kenn ku nekk li nga war a am nga am ci loolu mooy dëgg waaye benn groupuscule de personne nekk au sommet de l'État di séddoo xaalis sénégalais yi ku wax ñu jàpp la tëj ku wax ñu toroxal la loolu dafa war a jeex ci réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullah